c'est le ministre qui porte le brassard mais c'est pas le ministre qui partout kon respecté wante joxante cër ca la respecté wante joxante cër respecté wante joxante cër dafay ànd ak nag ay obligation obligation bu ci juutu mooy obligation de loyauté munoo nekk ak liggéey ngay liggéey nit nga koy kàmbal fii Sénégal ñu bari dañuy wax ni dañoo gëm yàlla ay julli lañ waaye gëm bi ci ragal la rek ragal rek waaye gëm ci xool la xam ni avenir ça appartient à Dieu et ñu liggéey nag pour que tey li am ci résultat buñ koy jox léegi yi keneen mu mun ko yóbbu feneen à un autre niveau c'est ça la bataille et c'est pourquoi ma kontaan ci ñi ñu fii décorer d'abord ñu nekk en activité loolu itam il faut que SG ñu ko continuer ko et les directions générales aussi ñu continuer ko dans leur direction à motiver ceux qui travaillent ceux qui se battent il ne faut pas dans ce pays qu'on pense nit mën na jaar par ay port ndollu autre que le travail mën nga nekk militant oui mën nga nekk engagé mais boole ci mën liggéey bi. yéen ñii di seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al TV te bu leen fàtte laal cloche bi.